ndeysaan am na sunu mbokk bu baax bu faatu ku bëgg xam-xam ku jàng wàllu tubaab la ñu di ko wax Cheikh Anta Diop kayit yi ba mujj jot ci moom dama ko yërëm ndax dama yëg ni

mystique boo gis bu demee ba mëtal dal di nekk scientifique ndax li mu yëg du ko mën a jottali nit ñi lu dul jaar ci li fi nit ñiy jànge moo taxit scientifique bu nekk bu demee ba mëtal dal di nekk mystique parce que li muy laaj science science du ko ko mën a répondre moo tax mu di ko wuti ca côté ba ca des dafa ko mujj yërëm ndax ñaari yëf ko jaaxaloon nee na wóolu na ni màdd am na parce que ci lay liggéey wóolu na ni jawhar am na parce que màdd boo ci soree dana la joxoñ loo dootul xam waaye li mu xamul mooy ndax ci màdd lañuy ñuy jaar pour dem ci jawhar wala jawhar alam mustaqil la bu nga xam ni boo fa jëlewul doo am tontal yi la daaray science di laaj ba fa seen liggéey tolloo amon na yakar ni bis باسم العلم سوف تتصل الشهادة بالغيب مملول ننقو لكم وانت dafa am aalam jawhari wala dangay tàmbalee ni ci yi mu daan tudde particule x nga xam ni bu ñu jaaxle rekk ni x muy rëms foofu sarxalu na fa ba tuuti mu dab mystique yi ma fala paatu mu mel ni ñoom faridu dina ba mel ni ñoom Chibli mel ni keneen mel ni keneen mel ni keneen tous les grands mystiques tous les grands mystiques peuvent être considérés comme des scientifiques